Assane ñu dooree ko ak euh, démb li xewoon ca Portugal suñu gaynde yi noggatu nañu waa Brésil ñeenti bal ci ñaar. Brésil gu mag la. Brésil waaw. ñoom Ronaldo. gi nga xamoon rek. man ñoom Ronaldo laa xam. waaw Brésil waaw. léegi nag euh, Brésil gu Sénégal dóor ah loolu day ci histoire moom lu am solo ndax xam naa ne. est-ce que Assane nee ngay xool sa kamera mais est ce que doonutoon kon xam naa ne en tout cas daal man loolu moom maa ngi ko doog a dégg ci histoire muy lu am solo Sénégal dóor Brésil maa ngi gis booy bi nga def ci écran bi sax booy bi man xam ma ne woon Brésil la dëkk ndax keroog doon naa ko seetaan ci benn maxi mook benn paa mu koy paas hmm. mu ñuy dugal mu doon booy bu aay léegi nag démb xaw ma dugal na am déet mais macha allah am na solo daal mais maxi bi moom nañ koy gën a nañ ci gën a jàpp daal mu ñu koy gën a bàyyi xel ndax man yëguma ko woon yëgoo ko woon hmm. alaaji waaw booy di démb defati nañ jaloore waaw loolu de jaloore ju rëy la muy mbégte moo xamante ne bii tamit Sénégal am na ko parce que Sénégal euh, dëkk lañ bu yàgg supporter Brésil. Mhm. ci football bi nga xamante ne bii moom la Brésil euh, yàgg football. Mhm. Sénégal dañu bëgg football bu rafet. boo mënee football sax dañ naan diw comme brésilien maanaam dañu yàgg référé wu ci ñi nga xamante ne bii mooy euh, dëkk boobu. Mhm. ci wàll bi nga xam ne mooy wàll football parce que nag Brésil. dafa ŋànk li nga xamante ne bii mooy football bi waaw def fi loo xamante ni bii lu rëy la donc démb moom wax dëgg fa yàlla euh, am na équipe yoo xamante ni bii boo leen gañe neex na waaye am na équipe yoo xam ne boo leen gañee euh, day gën a neex donc vraiment sunu Lions yi ñu ngi leen di féliciter. Mm-hmm. di am ci ñoom mbégte bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni bii wane nañ ko parce que parfois euh, équipe bu Afrique yi benn problème la ñuy am. léeg-léeg ñu dajeek équipe sax mën ko mais hmm. dañuy am complexe équipe bi ndax tur wa parce que dañ naan maa ngi dajeek Brésil loolu daf lay wan rek génération bi ñu nekk nii hmm. maanaam complexe ni mu dañee ci ñoom que ni euh, bu ñu defee yow phase ngeen jàkkaarloo hmm. maanaam gisuñu la maanaam seen bopp lañu gis gëm bi nga xam ni moom lañ gëm seen bopp moo tax ma ne la depuis quelque temps nit ñi dañoo seetluwut mais gëm gi nga xamante ne bi jeunesse africain bi gëm nañ ko léegi Afrique. Mhm. Euh, dafa nekk lu extraordinaire. dafa am jom ñu àndal moo tax Sénégal dañu perdoon euh, Sadio Mané ci coupe du monde bi mais jàpp naa ne Sénégal mënoon na gën a sori coupe bi sax mënoon na doon kubam. parce que mhm. gëmoon naa lool mais le fait que Sadio manqué leen. Mhm. moral day dem parce que Sadio man damay wax ne Sadio maane bu Sénégal ak Sadio maane bu Bayern. du benn. parce que fii Sadio dafa xam ni moom moo yenu équipe bi moom laa xam ne Bayern bu ñu bëggee jariñoo saajo dëgg-dëgg mm-hmm. faaw ñu jox ko gëdd bi nga xamante ni moom lañ ko war a jox mm-hmm. buñ ko joxee gëdd bi jox nañ ko ko ci wàllu salaire parce que moo fa ëpp salaire waaye joueurs yi dañu desee jox Sadio gëdd bi nga xam ni moom laa am mm-hmm. donc moo tax saison Bayern euh, bon jël na championnat bi mais difficilement la ko jël mais euh, Sadio mu Sénégal moom ba tey rest Sadio. d'accord waaw donc loolu c'est très important ñu ngi féliciter Lions yëpp. Mhm. ci taxawaay bi nga xam ni amal nañ ko. loolu vraiment euh, wane na ni place bi mu yor ci Afrique. Mhm. doon champion d'Afrique. Mhm. Euh, du lu mu lijjanti waaye lu mu mérité la. d'accord voilà. MD service da nee na xamoo football. <coughs> man Ronaldo kay xamoon naa ko. non waxul ndox xam nga ay joueur de football la wax maanaam xamoo. jamono yooyu laa daan seetaan football temps booy. ñoom Ronaldo ñoom Barthez. ñu ne Tamboy ñoom Zidane wax nañu waaw ah, laa xam ne ñi xam na. <laughs> ayja.